bu bés bi am na njaboot yëpp nag saytul ko liggéey boobu muy dëkk bi di Touba loolu daal mooy ndigal yi ñu ne ko fàttali. ànd ko njabootu Sëriñ Touba ji ànd ko seexu yoonu mooy lépp waxtaan bi te ba déggoo ca ñu kon lii war ba ji sëñ bi nee nañ ñu ko jox am dëkk bi lépp lu Sëriñ Touba bëgg ci dëkkam bii maam yi Sëriñ Amdi Fall Moodu nee na dina am yàlla fi yàgg loo tànn ku tey jii nag Sëriñ Amdi Serigne Baye Fall yi ak Cheikh Moussa Fall ak mboolem seen waajur ak taalibe yi ñoom ñëpp ñu àndandoo war corniche bi di fàttali baatum ndigal bi bëgg ñëpp maase ci tënku ba ni Serigne Mountakha Mbacké bëgg ci dëkk bi Serigne Touba bëgg ko fi ñun ñëpp ñu fexe ba loolu am. jot na ndigal ci Cheikh Mouhamadou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 laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faa laa ilaaha illallah faa laa ilaaha illallah faa laa ilaaha illallah fekk ba Sëriñ Amdi Fall moom sëñ sëriñ Amdi Fall nee na sëriñ Mountakha Mbacké da koo digal lépp luy war may Touba nan sàmmante ak moom kon kenn ku nekk nee na na nga waxtaan ak ña nga yilif ndax bëgg ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru wolof fukki fan tubaab Cheikh Falil Fall moom sëñ Modou Aminta juk ànd ak taalibe yi ak Cheikh Moussa di jot ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di wax ne ñun ñëpp ñoo ko bokk na ko ñëpp bàyyi xel waaye ñu ngi koy fàttali police gendarmerie ñëpp nañ jàpp jàppale sëriñ bi ci ndigal li ba li sëriñ bi bëgg rek loolu am li sëriñ bi bëgg na loolu am police gendarmerie koo xam ne takk den ci nekk ci dëkk bi yaag Baye Fall yéen a ànd liggéey bi li sëriñ bi bëggul ci dëkk bi nan fexe ba mu dëkk bi kon sëriñ bi da nga koy fàttali ñëpp koo xam ne sa yaakaar ci Cheikh koo xam ne sa yaakaar ci nekk moo digle bàyyil xel baatum ndigal bi football mees politique sàcc dam yee sàngara a doon sëñ bi la koy tere sëñ mu taxaanee ko bàyyi waa góor Baay waa góor a murit waa góor Baay Faal waa góor a murit waa góor Baay Faal ndigal jug la bàyyi ko fa mu daan waaye kër Cheikh Ibrahima Fall kenn desul sëriñ Amdi Khady Fall moom Cheikh Sëriñ Assane Fall sëriñ Abdoulaye sëriñ am di faal bëgg faawu day am bëgg sëriñ Tuubaa la te Cheikh Ibra Fall mosu koo dégg ci jëfewu ko sëñ am di ne la bëgg sëriñ Tuubaa gi Cheikh Ibra Fall mosu koo dégg ci jëfewu ko ci rafet wax ju bon ak jëf ju bon ak coow ju bon sëriñ bi da koy aaye ci dëkk bi sëriñ Falilou Fall jëwriñu sëriñ Modou Amin Thiaw jabootu Cheikh Ibrahima Fall ñëpp a ngi fi ak seex yi daa yaram woo góor waay football politique wax ju bon ak jëf ju bon ak coow ju bon sëriñ bi da koy aaye ci dëkk bi teg nañ ko ci loxol Baye Fall yi waa góor waay ku ko dégg jot na ko sa morom. Cheikh na. émission yi ñu fàttali war Baye Touba. teg nañ ko ci loxol Baye Fall. déggal sëñ bi te déggal sëñ bi fas yéene jëfe ndigalam mooy lan dëkk bii di Touba sëriñ bi daal dafay tere yii lu mel ni bëlët lu mel ni politique njaayum póon njaayum sàngara tux naan gees xeex xuloo jamantay paaka yàq sàcc jëli fi jàmbur ñaara daal borom Touba xam bëgg ko ci dëkkam bii kon nag képp koo xam ni yaa ngi lay digal ñëpp nee na waaw Cheikh Ibrahima Fall la ko mën maam yi Serigne Cheikh Fall Baye Mbour Baye Cheikh Moussa Fall sëkk bi sëkk bi ne yàlla jàmm nga nee na maa ko mën dinaa ko def mais sa digg Kumba Fall nee na maa ko mën dinaa ko def maam yi Serigne Cheikh Fall borom ndigal nee na maa ko mën dinaa ko def lépp lu Serigne Touba bëgg. barab bu Cheikhul Khadim daal nan ko bàyyi xam ni Cheikhul Khadim kenn du moom kenn du borom Touba Khadim Rasul kon mbokk jullit yi mbokk taalibe yi suñu sabaa yaa ngi garage daaru yaa ngi wax mi nga xam ni. boo ñu nee kër Thierno kër Cheikh Ibrahima Faati mbokkum Cheikh Ibrahima la fii ngay jaar kon kaddu gaa ngi nii. waaw Gore Gore Ndiaye naan naan daa fekk sëñ bi woo ma ci kanam waaye da am baat boo wax da wax ni fii mooy gaara daaru waaye daaru gu nekk am na ci Touba daaru gu nekk sëñ Touba bind na ko waaye dafa am ñoo xam ne dañoo xam nan ko xam ko wax nan ko bàyyi fii ni buntu Pikine buntu Texe la waaw góor sëñ daam jërëjëf Fall Ndeka Cheikh Fallou Cheikh Fallou jërëjëf bu ngeen xoolee nii di ngeen xam ni ñoom amuñu am jot de. dox leen dox leen dox leen. buntu daaru rompaye maam Thierno Cheikh Oula Fatick bàyyi si Miqdaad bàyyi si Siweeru bàyyi si maam Mouride bàyyi si Moussa Ndañen fii daal mooy buntu daaru nekkatul ba di dëgg bis yi tey talaata tey ñaar fukk ak ñeent talaata la 13 juillet 2003 ay. moom góor góor Njaay naanaan waa gis nga bi ñu soldaar si nga xam ne mooy soldaaru baatin gi waaye saa yi saa ngi nii taxaw sëñ baa ngi leen di ñaanal na garaat yokk jàpp leen ko ci dëkkam bii li mu bëgg yéen la ci yaakaar ak Baay Faal yi nan ko ci jàppale dëkk bu toll nii pour ko teg ci sa loxo li nga bëgg lépp lay am sëñ baa ngi leen ñaanal jàmm di leen sant gërëm leen yokk ba yëg ko barke Faal yàgg te wér fii mooy Kara Soudarou soo bàyyi koo Daaru Musi ñu ni daa wàcc ab liggéey boo duggee fii Cheikh Fall ni la dugg ngaa jara sëñ daam fii na leen di waaye na Cheikh Moussa Fall Fadil di jëruñu Cheikh Fall Fall moom sëñ mu reminta sama yii ngeen tudd ndigal ci seen kilifa Cheikh Fall Fall moom sëñ mu benn daa wax ni baag ba leen mënoo koo gis kon koo da nekk fii sa kaw mu doon gis loolu sëñ Fallou waxoon ku nekk fii ci nekkoon fi ne sëñ bi bëgg waajal ñëpp ci sa kaw ñëpp ci sa kaw na ñëpp a déggee bu dégg loolu na dégg loolu nan bàyyi xel barab bii nan bàyyi xel barab la sëriñ bi ne football politique coono kon jëf ci ko. fii moo fi nekk nekku fi kon am nga fit amoo aw fit ndax fii bi fi gaynde nekkee ak bukki ak mbaam àll ak rabi àll yu soxor yi maam Cheikh Ibrahima Fall moo fi duggoon tey nag la lamp yu bari station yu bari étage yu bari nga dugg sab salle de di ko xalal sëriñ ab lal buñ ci dee yendu ci ak basang c'est fii ñu sellal moom sell yaa ngi ci biir taal bi baasal faalo ku fi nekk yaa ñuy woo wala bu ñuy yoree jàpp fii sellal du ak dara dara gaa ci biir sëriñ bi nag daa bëgg wala si am nit fulo mu ne ko jaay Serigne Moustapha Sylla jërëjëf bokk noo ko dégg nañu li nga dégg xam ni bàyyi ko ñu la man ci wala la wax bi nga te liggéey nag dox ma ci ak fulla ak ay yéene ñëpp jàmm ay yéene ci dëgg ndigal li nga xam ni Baye Fall yi njaboot Fara Fall dañ leen a dénk dëkk bi lu yor ko si Mountakha Mbacké jox joxe ndigal force de l'ordre baa ngi nii force de l'ordre Serigne Touba baa ngi nii ñoom ñëpp ànd doo leen jug ànd ak capitaine bi généralu Cheikh Ibra Fall bi am na yaay Modou Mbenda ci li ko Serigne la la la li see Muntaxa Mbàkke bëgg doon sant aw tur day amul sant nee na ak bëggam la am Cheikh Ibrahima Fall nee na ko ñi nga ànd ak ñun jarama Cheikh Ibra Fall sëriñ bi fan la war may tuub teg ko ci la war may tuubaat mu du mel na milliards. 37 milliards. war may Touba ci dëkk bii teg nañ ko ci loxo jëwriñu Cheikh Ibra Fall Serigne Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda Fall ñal na fi yàgg lool tànn ko wér ndigal la yàgg kër maamam la sëriñ bi nee na moom may Touba teg nañ ko borom xel fi la ñuy toll nii di jottali baatum ndigal ba góor bu bàyyi ko kër sëñ Tuba ñëw kër Cheikh Nafal nee na teg nañ ko ci loxo jëruñu Cheikh Nafal bi nee teg ko jëriñu maam Cheikh Ibrahima Fall ngeen waajal ko day dañ bu suba jàmm bu fekk ni ñëpp dañ ko dindi woon de day dañ ni joor ak jamoon suñu ne ngeen di ko dem ci marché yi ak syndicat yi na maa ngi ñu dem marché ni ñu ñu dem marché maa ngi ñu dem syndicat suñu Cheikh Fall mii ak Cheikh Fall yi ginnaaw xëy na tey jii ci ndigalu sëriñ bi ba jëfe ndigal li ni ko sëriñ bi bëgge woon ba dajawaat fii dafa am baat bu ne ci suñu kanam te ñun ñëpp ñu bokk ko te kenn ku nekk la ci sa pas-pas ak sa yéene mooy ni ko sëriñ bi bëgge nga man ko ba defe rek noonu sëriñ bi sëriñ bi bëggoon rek bu ñu ñaanalee ba ñu ba noppi ñu dem waajale loola dégluwaat nag baat bi jàllee nañ jëm ci. su jàllee nag. bari na yu jëm su mbooloo mi teewee mooy wax ci turu waxul ci kilifaam rek lay wax nee na ko amul kilifa nag jiw yi ñoom ñeneen ku nanguwul kilifa rek moo am faal moom day nangu a kilifaam yëpp yilif ko nee kon nag faaw koy wax ci seen rek lay mën a waxe faal xam ngeen ne xëyum tey bii sama nijaay sama nijaay si yàlla faal waxal sa kilifa yu baax yi nga toogal ni leen nee kàddu yi ñuy jottali nee mën na ni lu ndam ndax ku nekk mën na ko fi ngeen jaar muy ndigal si barabu Serigne Touba bii def ko defi lu mel nii ngeen ko defee xam ni waxuma la dëkk bi waxuma réew mi waaye àdduna sépp yëg nañ ko suñ xëyum tey nii tasaaroo na ñëpp ñu dal mi ngi dox di def yoonam rek nee na loolu nag ku ko def tamit noo war def nettalil ko fa mu jaar. nettalil ko fa mu jaar. loolu daal mooy dundam ku ne. loolu daal muy dundam ku ne mën na ko. ku ne mën na ko ku ne mën na ko. ah li ñu jubloo wax rek mooy. li ñu jubloo wax rek mooy. Ah, ka bëggoon moom. ka bëggoon. di jëriñu seen tubaab yi. bëggul suñu borom la bëgg. bëggul ñu bind lépp moom la bëgg. bëggul Sëriñ Tuubaa ak Seex Faal la bëgg. bëgg ñu baax ñëpp la bëgg rek. muy jox war ma. dëkkub Sëriñ Tuubaa bii. nee ko am këru texe gu toll nii ñu sàkkul la ko war may adduna ja ak defarub sayid ga kenn waru la ko war a sa bopp nee loolu moo waral jëwriñ si Tuubaa ji digal jëwriñu Seex Ibra Faal ji nii nee mu digal ko rek njabootu Seex Ibra Faal gi waaye mu am bànneex bu ci nekk nag ndax mag bu rëy gi ci def ndax mboolem bu digg sëñ Tuwaay ak jëw ñi kër sëñ Tuwaay nee na yëpp nee na fu ci nekk ndawam yi bëgg bëgg mbokk moom baatu ndigal bi nee loolu mu di ndam lu rëy rëy rëy ñi ngi dellu di ñaan yàlla suñu borom jëwriñu sëriñ Tuubaa ji yàlla na fi gën a yàgg jëwriñu Seex Ibra Faal ji yàlla fi gën a yàgg nee ñun ñii nga xam ne ñooy jëwriñ yi nee yi ñoom it ñun ñii yàlla fi gën a yàgg rek nee loolu sëñ daam solo sañees na koo ñaan loolu nag nañ koy ñaan ñun ñëpp ci turu sëñ Faliilu Faal nee loolu ci turu sëñ la ko waxee nee na koo def muy jëwriñam nee moom it li muy seen jëwriñ saa suñ jëfee ba wàcc war naa mën a wax ak ñoom ginnaaw def nañ ak moom defal ko sëriñ bi naa waxal sëriñ bi ba ñëpp ko rek nee loolu waral muy yëkkati ay kàddu jërëjëf Fall waaw dani sant rek jot li cant sëriñ nga xam ne ñoom la ñu àndal ci ndigal bi ñu ba nga àggalee liggéeyu gaar ba ba sëriñ bi ñëwee ñu jot li ay ni boole si ndigal bi lii nga xam ne moom ngeen doon liggéey ngeen ngeen saytu ko di sàmm fi jëlee du si boobaag léegi nag ñu ngi si ndigal loolu ànd ko sëñ ji ak njabootu Cheikh Fall gépp mooy jëm kër yëpp nga xam ne dañu ko defoon dañu ko defoon ay ay ay ay xaaj boole ñu ñaari buntu kër yu ne ñu boole leen ak benn seex wala ñaari seex ak ñenn si taalibe yi jox leen genn wet boo xam ne ñoom waxtu bu ñu xëyee kenn ku ne wet dañ la jox da ngay xëy su ko defee ku àggal te mën a dimbali ji wala nga jàppale ji sa sa morom nga def ko. soo ko mënut a mën daje fi benn barab sëriñ bi ñaanal mu yeewu liggéey boobu nag mel ne loolu sëriñ bi saa wax liggéey bi des koo yeesal dolliwaat ko waaye liggéey bi moom nag jëkk muy foon nii nu ko tàmbalee woon it te mu mel ne rafet na di jub na ndax boobaa ak léegi sëriñ baa ngi si defal taw fii li li li si sëñ bi bëgg ni nga ko si am loolaat mooy mooy mooy jotaay bii rek liggéey nu taxaw tey jii nag kenn ku ne xam ne day mel ne li ñu naan pàcc bi sëriñ bi mënut woon a ñàkk ndax ndax ni ko suñu saafara moom àgg na fépp te gannaaw sëriñ si am lu mu si yokkaat mu si dolli loolu it war na noo yëngu ba ñëpp xam ne keroog bu baax bi rotee rek ñun lañ si nekk te doo duñu si jóg ku nekk sëriñ bi am mu ko bëggee loolee moom la sëñ bi doon firndeel léegi kàddu yooyu ñu ngi ñu sant seen tool bi yi nga xam di suñuy wajur parce que munu munu wootee ci ndigalu sëriñ bi ñoom kenn du leen ci jiitu ñu ànd ak ñun te xam nañ ni ñu ngi si ndigal yoo xam ne yu mel ni yii rek ndax ki joxe ndigal yooyu moo joxe ndigal yooyu waaye waxtu bu sëriñ bi wootee di jënd seera faat bi ñoom ñëpp ñu bàyyi ñu jàpp ñu ànd ak sëriñ bi nga xam ne alal bi seen alal la ndigal moom fu mu ko doon fu mu ko doon fu mu ko kenn du leen séddale li li si li si njabootu Cheikh Fall li si kenn ku leen rek moom lañ sant loolu leen ñu si sant bu baax di sant suñu kilifa yi nga xam ne ñoo ne suñu kanam eh, nga xam ne duñ noppalu duñu tay duñu dalu wax mu ne jëkk nañ ngir di sëriñ bi bëgg ñu defal ko ko nañ ko bëgg waaw lu ñu gàtt gàtt dégg wala ab gis naa si ñaan ko waaye ñoom ñii fi ne sëriñ maam Cheikh ñi nga xam ne toog doogal ci sëriñ bi di jëmm sëriñ bi ah na ñaanal sëñ Fallou bi sëñ nga xam ne ñu ngi seen ginnaaw ànd ak ñoom liggéey boobu ñu ñaanal ñu ndax ñun ñu wér ñun li ñu bëgg mooy nañ wér rek nañ wér di ndax bu ñu wéree li sëriñ bi bëgg moom faaw ñun daanu ko def ndax suñu bakkan yi lañ ci jaayante moom li sëñ bëgg dañ koy def kon nag nañ wér nañ am doole nañ am kàttan rek ba ma def noonu liggéey bi nag ni ko sëriñ waxee fii fii fii tabaski dafa jege te xam naa xëyaat bi dina doon loo xam ne at lay doon te ñun ñii nga xam ne commission boobu ñu tàmbalee woon keroog am na léegi bu ñu nekkoon di ko dox te àggagul mooy liggéey boobu ñu doon wër njabootu sëñ bi ak seex seex sëñ Tuubaa yi ak daayira yu mag yi ak euh, chef de quartier yi ak délégué de yi ñi nga xam ne ñëpp sëriñ bi daa bëggoon ñu tappal leen ci liggéey bi ngir fa ñu nekk ñoom ñu mën faa doon ay ay ay jëwriñ yoo xam ne da dañuy yor dañuy jàllale baatu sëriñ liggéey boobu tey jii rek ñu ngi war a gontu dem Daaru Muxti bi soobu yàlla hmm. xam naa ni bu ñu jógee fii rek dañuy waaj ñun dem Daaru Muxti hmm. waaw suñu si jógee wéyal liggéey ba rek hmm. ba booba ndigal lu fi amaat diggante diggante dañu fexe ñëpp yëpp ni ñëpp yëge ndigal bi rek waaw ndax lii kat sëñ Fall ñëw moo si na te yeesaat na war nañoo jëm ba ñëpp xam ne ndigal li tàbbi nañ ci te doo doo si dara bi ginnaaw mukk ma ne ko gën a sëriñ bi mu xëy ne ndigal bi mën soo ñàkk ne xam ne mi xëy mënu ndigal bi ne ginnaaw si mun taxa mbàkk ñëwee ba teew joxewaat baat ba ba ñëpp dégg ko teew ngir ñu sàmm war may tuwaa ji moo waral suñu xëyum tey nii ci talaata sëñ bi ne tey jii nañ xëy kon nag waral Touba jot leen ay nuyoo ak i jant ak i ngërëm ci liggéey bii sëñ Mountakha Mbacké joxe kenn façon koo ànd ak moom loolee moom la sëñ Amady Fall doon yëgle nee ñëpp bëgg ko yëg ndigal lii egsi moom nee du sëñ Touba gi ñoo bokk. ak njabootu moom Cheikh Ibrahima kon ku sa yaakaar ne ci Cheikh Ibrahima Fall laa ngi nii nee na dañ doon yëglu rek ak di nuyoo ak di wane ni ndigal li egsi na Baye si Baye Fall si ñu liggéey bi ci suñu muy liggéeyu Cheikh Ibrahima Fall nee ñu ngi koy ñaan ca dara sangam maam Cheikh Ibrahima Fall ak sëriñ ma sëriñ Touba léeg-léeg leen na lépp jàppale nee na muy xar muy xartum yi muy wér muy xaalis bi xar xartum wér ak xaalis xar xartum wér ak xaalis nee barke si waaw. waaw waaw nee kon ba ñu ko sëriñ bi nee nan ko noonu nee kon nag lii moom am lu la ak yëg lu kon ginnaaw yëg lu leen nuyoo wër bay si fii nanu sëriñ bi ñaanal faal pour xewloo xewal yi dem waajal ci suñu kanam tabaski waaye nee ginnaaw bu tabaskee danañ fas yéene ñëwaat nag ci liggéey bi nee na ba lépp set wicc leer nañ ñi nee jërë ngeen jëf. tàllal seen loxo nag tàllal nañ seen loxo nag kon fu waay nekk tàllal sa loxo te wax amiin amiin Fall amiin bokk leen ñaan allahu amiin amiin yaa rabbal aalamiin abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa ay xibaar yu wér te wóor ci réew mi ci